bokkeen tax na Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar bokk na ca nag la nga xamante ne moo ca gën a fees mooy fi nga xamante ne bii nag moo di dakaar ak ci yeneen région yi nga xamante ne ñoo war fee ci Dakar foofee nag tey dal di tàng jër fu ci mel ni fële ca Ziguinchor nag tey ñaari bakkan dal di fay rot. ca manifeste yi nga xamante ne bii ma fa doon am ginnaaw verdict bi ba mu daanoo jëm ci ki nga xamante ne moo di Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom mi nag di Adji Sarr ñi nga xam ne ne ay ronqa ñam na cib dënnam foofee nag ginnaaw bi nga xamante ne bii nag loolee di verdict ba daan na kii di Ciré-Clédor Ly di avocat pour Ousmane Sonko mi nga xam ne ne ronqa ñi Adji Sarr yooyee du ronqa ñi lenn ronqa ñi réccu ndaxte kat li mu yaakaaroon ak ni mu demee dafa mujjewul nekk benn ki nga xamante ne bii nag moo di Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne ne ronqa ñi Adji Sarr yooyee nekkagut sax ay ronxañ ni léegi dina gën a jooy jëm ci li nga xamante ne bii moo di askan wi jëmale ko ca loole nag mooy li nga xamante ne bii ni gën naa fës tey jii foofee ca diwaanu Dakaaru Njaay ci yeneen i régions yi it ñu nemee ko fa ay taal ni ki ay station ak yeneen i boutiques yoo xamante ne bii ay agents lan loolee it di mbir yu doy waar yoo xamante ne bii mi ngi xew ci yeneen i gox ci biir réew mi niki noonu nag ay oto yu police yoo xamante ne bii it gis nan ñu daal di koy taal jàpp it loolu it am na ci biir réew mi ñu bëri nag di ñaan dimbal ki nga xamante ne bii ni moo di président Macky Sall ngir lépp it mu daal di delluwaat ci fa mu nekkoon ci kaw jàmm ak salaam te kat réew mi réewum jàmm la kenn mënu ko xar ñaar ñu bëri nag loolu leen Yékini ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall mi nga xamante ni bii moo jiite réew mi ki nga xamante ni bii nag moo di Ousmane Sonko nag ñu daan ko lu toll ci ñaari at yoo xamante ni bii da kaa war a tëdd ca kaso ba ak nampaay loo xamante ne mi ngi ci am ndoddam mu war kaa joxe loolee waral nag tey réew mi tàng jër foo romb nag gaz lacrymogène dina fa